xasbunaa doy am nañu koy wax wakiilu yooyu yëpp nag boo ko xoolee jaam bi du doon lu muy wax rek ci làmmiñam waaye day fas yéene doon lu muy jëfe gannaaw bëgg a jullee ci yonente bi sallallahu alayhi wa yàlla doy noonu du liis di wax ci làmmiñ waaye mépp mbir moo xamante ni taxaw na ci sa kanam te jaaxal la danga ca doyloo yàlla doyloo gu dëggu ci sa xol waaye du doon rek looy wax lépp loo xamante ni dana waral bu nga dellu ci yàlla nga dellu ci yàlla ba noppi doyloo ko wadis nag keneen wala leneen ci sa mbir yépp yëpp nag adduna ak alaxira innamal ahmal naka jëf bi nekk na ci yéene mooy jëf ju ne yéene nga yéene moo koy tungoom innamal ahmaal naka jëf bin niyaati nekk na ci yéene ya nit ki lépp lu muy jëf jëf bi yéene jam yéene njëkk muy jëf-jëf jam mooy àtte jëf ja ndax nit kat mën ngay jóg jëm ca jàkka ja mën ngay jóg dem jàpp jëm ci jullikaay ba waaye yaa ngi am yéene ngistal yàlla taxulaa def yaa ngi jóg sol ay sir mën naa doon yére yu fagg waaye fekk na dëddu adduna ci xulaa jóg waaye nag fiir poña xiitum adduna moo la tax a jóg nit mën nay jóg di joxe alalam fekk joxewu ko ngir yàlla waaye def koy joxe ngir am nit ñi waaye defu ko ngir wut mal yàlla yooyu nag mën nga koy topp di ko topp di ko topp ba ci xeeti jëf yëpp nit mën nay aji makka te dem ngir wuy ji wooteem yàlla ak toroxlu ngir yàlla ak jëfe santaanem yàlla taxu koo ko tax a jóg wala alxaaj moo ko tax a jóg nit tëbaskaay yu jub mën nay wut am xar ngir tëbaski waaye difu ko ngir tuur deret ngir ndigalul suñu maam Ibrahima lu ko suñ borom digaloon mu ñëw ba ci jullit ñëpp waaye yaa ngi koy def ngir puuk réew tàmbalee ko ci xar ma ngay jënd dayo ba waaw sama xar mi lim jar xar mi ma jënd kenn amu ko yooyu yëpp kon jëf ji loo ko loo ci yéene rek moom nga cay am su fekkente ne nit ki dafa jóg di jàpp ngir wéyal ndigalal sunu borom na mu gën a selle dem ca jàkka ja na mu gën a selle ngir màggal yàlla ak warmaale yàlla ak ne ci ndigalal yàlla loola dana ko ca am nga xam ne fi nga taxawee ne allahu akbar ba fi ngay sëlmale sa xelkat mooy dem ci sa borom bi la bind moom la melal la kàttanal la indi la ci kaw suuf bàyyi la fi di la xéewalal di la fegal musiba balaa di la fi jële di la laaj ëllëg sa xel ci loolu rek lay nekk kon innamal ahmaalu naka jëf bi niyaat yi nekk na ci yéen yi wa innama li kulli imri in nag ñeel na bépp cam wa innama li kulli imri in naka ñeel na bépp cam maanaawaa lam yéene ca ba muy jëf kii yéene ci yooyu ma tudd léegi yéenewu ca lenn lu may nit ñi ak lu muy amee ci li ci seeni loxo ak luñ koy tagg ci seenu làmmiñ ak melawu ñuy mel ci moom su boobaa loola su ko ca amee na ko wóor ni jëf ja lenn yàlla du ko ca fay ëllëg lu may loola niki noonu nag su fekkente da ngaa yéene ngir am ngërëmal sunu borom subhanahu wa taala it na la wóor ni loola danga ko ca am wa fil nekk na ci xikam man ngaa wax yére boo xam ne ibnu xataa illahi moo ko def xikam lañ koy wooye waaye man ngaa wax ci baat yoo xamante ni gàtt lay doon waaye lamboo njëriñal adduna lamboo njëriñal alaxira nekk na ci lu am solo nekk na ci baat yu am solo man talaba ku sàkku al amra mbir mu mën a doon wa zabda mu farlu ca lool def ci yitteem lépp yëpp def ci yitteem ju kawe ak pas-pas bu sell wajat mu am mbir moom man talaba ku sàkku al amra mbir wajat da mu farlu def ci yitte ju mat yàkkamtiwut yooxu yooxiwut tayyeelut yuqatut xooliwut ku ko tagg xoolut ku ko ŋàññi def na ci yitte ja ca war lépp ba jat da nga am moom mbir waaye doo man xaraxal ku fëgg na albaaba buntu ba wala mu nuur ca wala mu tàbbi bunt boo mën di fëgg def ca sa yitte def ca sa pas-pas am ca taxawaay bu mat sëkk ci mbir mu man di doon danga ko am loolu la jubla wax rek boo doon fëgg fii bunt bi te tëra bàyyi faw ubbileet la nga tàbbi wa fii haa fu ko waxee nga xam ne bokk na ci xekkam boobee lay wax rek bokk na ci moom xekkam ba tey man am zaka ku jàpp na ku téye na cëram yépp xanil fudóoli wa def ay caaxaan koo xamante ni nga sa yéene jëmalewu ko ci caaxaan damm nga say kàddu ak say jëf jëmalewu ko ci ay caaxaan xodda def na ko limaale min arbabil xoqooli mu bokk ca waroom xel ya bokk na ci xellu day bañ a yéene benn safaan bañ wax benn safaan bañ jëf benn safaan ku nekk loolu def na boole ca borom xel ndax ku xellu kat adduna dund gi ni gàtte man gi ni mu gàtte te li may gàtt gàtt ak tële na ca dana la woon ni dara caaxaan xëju du ciy wax du ciy jëf du ci mela koo koo xamante ne xam na loola daw caaxaan yooyu ci yéeneem ci xam ci jëfam def na ko boole ci borom xel wa fiiha ba tey ci xikam nekk na ci xikam man laa yusxitu koo xamante ni du merloo képp koo xamante du merloo nafsuhu bakkanam laa yurdi du gërëm ko mukk rabbuhu boromam du gërëm loo mukk yàlla wala du ko gërëm mukk yàlla boromam koo xëy la sa bakkan bëgg rek moom ngay moom nga moom nga koy jox doo xool lii yàlla gërëm na ko wala yàlla gërëmu ko waxtu wu daal sa bakkan la mu bëgg noonu nga noonu ngay jëflante ak moom la bëgg noonu nga koy joxe doo ci settee dara settewoolu xaraam settewoolu dagan yow daal sa bor sa bakkan daal doo ko teg wenn naqar ah doo am ngërëmal yàlla mu nit ki su bëggee ngërëmal yàlla day fexe di wuuteeg bakkanam te bakkan moom xam nga ko wuuteeg moom ah mu mere la ni ki nga xam nit ñi tey ku wuuteeg ñoom ñu mere la waaye nag loolu lépp nag doo ko xool ngërëmal yàlla rek ngay xool waaye doo xool ngërëmal nit ñi doo xool ngërëmal adduna doo xool ngërëmal bakkan doo xool ngërëmal bànneex doo xool ngërëmal seytaane wa fiiha ba tey nekk na ci xikam man faxala képp koo xamante ni jëf na macha ah la neex sa jëf moom surtout woo ci dara nam la neexe na ngay jëfe na waxe na ngay dunde na ngay meloo xamal ni jant dana fenk boo xam ne làq ya dana dajeeg macha ah lu ko naqari te kenn du ko ko mën a teggin ndax ku baax ki da daan wax ne adduna moom ku la fi naqari man ngaa ko dem feneen waaye àllaaxira moom lu dafa mën di naqari bii sa tànk doo ko def jëm fenn wu fiiha nekk na ci xekkamit ba tey man laazama ku takkoona mujaahadata nafsihi jihaad ak bakkanam ci lépp loo xam ne yàlla gërëmu ko sa bakkan doo ko du la ko mën a def loo mukk taxaw nga ca temm faasa mu texe inda xululi ramsihi fa wàccuwaayu bàmmeel ba buñ la tegee ci kuusu bàmmeel war laa wàcce ci biir bàmmeel da am la nga doon lépp ci yàlla ci dund bu xéew yàlla soreel la lépp lu la naqari foofa wa fiiha nekk na ci xekkam ba tey man taabaxa ma man taabaxar ku topp na a rasul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndawal sunu borom hmm? képp ku topp li yàlla digal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy alquran ak sunna naa la mu am xayra suulin ngën gi la muy sàkk ci boroomam subhaanahu wa taala képp ku topp yàlla te jaarale ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallama dana la mbëgg lépp adduna ak alaxira waxaala wax na jaamihu xaasihi xikam aji dajale yile xikam wala yoo waaw aji dajale yii di xikam baytan aw bayit wu di wenn في هذا المهنا في المهنا وهو مم واحنا نقوى خمسة دجال إن هيكم يب في بين بيت مي بين بيت واحنا دجال إن مهنا يب بيت ومم وهو مم بيت وكل من كيف كا خمسة ساعة ما وارنا هني الرضا إلي ورس أي تاي تاي مي تاي تاي خل مي تاي تاي كد مي تاي تاي كير فإنه نقوم يفطر دنا دك fil fadaili ci ay ngëneel képp koo xamante ni day gont na di fekk di fegu ci lépp lu yàlla gërëmut ci pas-pas ci kàddu ci jëf dana gont ci ndogam ci ngëneel yoo xam ne du du jeex mukk ku nekk ci àdduna téye boppam du yéene lu ñaaw du ko wax du ko jëf ci cëram du ko melawoo ëllëg yoo man xëy am dana daje ngëneel yi du jeex mukk mubaarakul ibtidaay luñ barkeel ab tàmbaliwaay maymoonul intihay lu ñu barke lu ñu xéewale ab yamawaay wala xoo ñeel na ko moom ki doon wax aydan ba tey sii dolleef na ko fay dan ak bëbbal mooy dolliku leer gu bàyyi ko ci yàlla di jaar ci xolam mu di ko tuur ci xalimaak daage bayitun aw bayit aaxaru beneen haasal maxnaa ci mila maxnaa yan si mu dana way maxnaa xawli cheyqihi maxnaa waxi sëriñam ba rada na gërëm ko allahu yàlla taala aja kaw ji xanhu ci moom waxoo moom bayit wa dawlatul baatili nguurug neen saaxa senn saa dong la walaw dul xaqi nguurug dëgg ila saaxa ba yomal xiyaam fi mu nekkat nit ki lépp loo xamante ne ay neen la nga di ko yéene wala nga di ko wax wala nga di ko jëf wala nga di ko melawoo boo ko rombee day mel ni loo mus def boo ko rombee day mel loo mus def waaye nag lépp loo nekk te dëgg ci yéene ci wax ci jëf loolee ba yomal xiyam rek jëf ja dalay topp ba yomal xiyam alxaqu dëgg saabitun aji saxla wa amal baatilu ndaal ay neen wayen xalaa lu mu kawe kawe kawe kawe fasaaxi xun aji màbb la wa saafilu aji suufe la nguur nguur dëgg dëgg mooy sax wolof nag léeg-léeg mu ne lu yàgg dëgg la waaye lu yàgg tey dëgg mooy dëgg waaye lu yàgg te du dëgg it doon dëgg ndax léeg-léeg ñu ne lu siiw dëgg la déedéet siiw mbir taxul mbir ma di dëgg déedéet waaye dëgg moom dëgg sunu borom la nga nekk sa yow dong ak nga nekk bismillahi rahmaani rahim Hmm? baax na foofu yàlla na yàlla defal dégg ak topp